cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala ci fixe bi 33 951 49 44 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasul ci téeréem boobu ñuy wax silukul jawaahir di caqub wurus nga xam ne ni lépp ay njariñ la ak i waar yoo xam ne nii dafay delloo jaam bi ci boroomam ci lépp lu jëm ci al xawfu ar raja ndax yàlla moom dañ ko war a ragal lool waaye dañ ko war a yaakaar lool te sopp ko lool moo tax nettali yi nga xam ne nii day jógee ci sëriñ bi mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay dolli ab jullit ak ngëm dolli ko yaakaar waaye dolli ko tamit ragal yàlla Euh, sëriñ bi mi ngi nettali ci nettali bii nag waxi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yonante bi dafa wax ne guddi gim rañaane ànd ak sayyidina jibril alayhi salaam dem ca boroomam nee na suñu borom da ko wan àjjana yépp mu gis ca ñeenti dex yuy daw genn dex gi ndox mu sell la genn dex gi meew mu sell la genn dex gi sàngara su sell la genn dex gi lem ju sell la ju neex lool yu wuuteeg nag eh, yu àdduna yi wuuteeg goo xam ne ni mënee su ko gam-gam te dex yooyu suñu boroom tudd na ko ci alquran ci barab yu baree baree baree baree bare saa bu tuddee àjjana rek ñaari dana tudd dex yi mi ngi naan suñu boroomkat kat digg na jullit ñi way gëm yu góor yi ak way gëm yu jigéen yi àjjana yooyu nga xam ne nii ay dex dañuy balle ca moom te bu ñu fa duggee falo la sax du ñu génn ak ay nekkuwaay yu teey yoo xam ne nii eh, neex ga ak melo ya ëpp na ba mën a su misaal doomu aadama waaye nag ngërëmul yàlla moo gën a rey lépp loolu mooy texe gu mag nag bu ñu demee ci taw ba ay juróom-ñaar fukk ak ñaar suñu borom day wax ne وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات wa ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu gisee dex yi mu laaj Seydina Jibril ne ko waaw dex yi fan lañ jógee ak fan lañ jëm Seydina Jibril alayhi salaam ne ko fañ jëm de moom xam naa ko te mooy déegub Kawsara waaye fañ jógee nag xawuma ko da koy laaj sa borom déggub kawsara nag mooy dégg ba nga xam ne nii ëllëg ña nga xam ne ni texe nañ fa la ñuy naani doog a dem nag àjjana te dégg boobu suñ borom moo ko may yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ba indil ko ci aw saar mooy inna axtaynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka huwa labtar yàlla ñu boole mu daal di koy laaj suñ borom tabaraka wa fi saasi rek am malaayka dal di koy dikkal moom yonante bi ne ko gëmmal mu gëmm tuuti mu ne ko xippil mu xippiwaat ay bëtam nee na yem ci ak garab goo xam ne ni ab xubba mi ngi ci wetam xubba moo yooyu di nekk ci jumaa yi tey ron yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xubba bi rëy na rëyaay goo xam ne nii buñ boole woon doomu aadama yëpp yëpp yëpp ak jinne yëpp teg leen ci kaw dañu mel ni menn picc moo ca tong nee na xubba bi nag ñu ngi ko defaree wurusu durra wu weex tàll mu am ñaari bunt yoo xam ne ne bunt bu ci nekk ñu ngi ko defaree wurusu yaa xuut wu xonq bunt bu ci nekk am kànnaar kànnaar yi ñu ngi ko defaree wurus wu xonq wurus yu rafet rafet yoo xam ne ni taaru ga ëpp na nee na ma gis ñeenti dex yépp di ballee ci suufu xubba bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nettali nee na kon ma xam fi mu jógee nee na ma bëgg a wàññeeku malaaka mi ne ma waaw doo dugg ci biir xubba bi ma ne ko ah nu ma ciy duggee te xubba bi ñu tëj ko mu am kànnaar te yoruma caabi nee na malaaka mi ne ma yor nga caabi kay ma ne ko ah ana caabi mu ne ma mooy bismillahi rahmaani rahim nee na bi ma demee jege ba jub kànnaar bi daal ne bismillahi rahmaani rahim mu daal di ubbee ko nee na bi mu ubbee ko ma xool melowa ak yaatuwaay ga ëpp na nee na malaaka mi ne ma doxal tuuti ma doxee tuuti ma gis ñeenti koñ xuba bi koñ bu ci nekk ñu bind ca bismillahi rahmaani rahim nee na miimuk bismi gi ca la dexuk ndox mu sell mi di balle nee na xëxuk gi xë gi ca la dexuk euh, soow mi di balle nee na miimuk arrahmaani gi ca la dexuk sàngara si di balle miimug arrahimi ci la dexug euh, lem gu sell gi di bàyyi ko nee na sun borom tabaaraka wa taala daal ne ma yow muhammad sa xeet wi ku ci wax sama tur wi muy bismillahi rahmaani rahim danaa ko màndal ci ñeenti dex yi kon loolu dañ cey déggee solo su euh, bismillahi rahmaani yi am kon kenn ku nekk war na koy fonk di ko wax lu bari lu muy dugg ak lépp lu muy def mu jiital ca bismillahi rahmani rahim kon njàngale yooyu nga xam ne sëñ Tuubaa dana koy jàngal di ñu ci waar di ñu ci eh, bëgg jariñ ñu jariñu ci àdduna ak àllaaxira nañ koy fàttaliku di ko fonk te di ko jëfee ñoo ngi sant mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp rawatina ñu bokk ci jamhiya Hikmatul Yawmi ci seen taxawaay ci jàppale gi ñuy jàppale daara ji te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala lu ci waay def mu fulal la ko te defal la ko naanuwaay ca eh, ñeenti dex yooyu ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci daraja Cheikhul Xadim te yokk wërsëg yi ak barke bi ak wér gi ñoo ngi ñaanit ku def dara ci numéro bi nga xam ne mooy numéro daara Hikmatul Yawmi boo mënee envoyé ci whatsapp bu numéro bi sa tur ak li tax nga def ko ci dana tax mu yomb la ñu liggéey bi donte nag du ñu forcé ñi nga xam ne ni ñoom dañuy def seen lu baax rek ngir seq ko ko yàlla képp ba tey ku ko taamu noonu itam baax na waaye ñi nga xam ne dañuy cotiser weer ñeenti téeméer ñaari téeméer ku ci def dara